dañ seen taxawaay ci ci ci pencum ndaw yi réew ma euh, pour man bu demee ba assemblée sax waratuñu wax opposition war a wax parti au pouvoir euh, ndaw yi réew mi la ñu wax problème mu askan wi moom moo leen ñor ngeen dégg ci problème mu majeur jamono ji majeur muy homosexualité euh, chaque fois société civile bi ñu ngi koy jooy Euh, bu ñu demee ba di jéem a criminaliser li nga xamante ni moo di association li nga xamante ni moo di manifestation non autorisée euh, taal benn oto jàmbur wala leneen ak leneen comme ni nga koy waxee ñu koy criminaliser te képp koo xamante ni yaa ngi tëdd dina law nga am njaboot gu góor. bu ànd ak moroomu góoram sax sa fit du daal ndaxte ñëpp xam nañu mbirum góor jigéen euh, lëmbee na réew mi te gisuñu benn yoon pencum ndawi réew mi comme majorité comme minorité ñenn rek ñu ci xam xam ne jug nañ pour xeex ngir ñu criminaliser homosexualité lan moo waral loolu. waaw xam nga boo ma ne lan moo ko waral du ma la may lii moo ko waral lan moo doon laaj ndax loolu man sama xalaat laa joxe. Mhm. man de li ma gëm mooy diinal islam. te ban diine nanguwul. homosexualité loolu nga wax ban diine nanguwu ko comme ban diine nanguwu ko nag man mi nanguwuma ko. sama xalaat léegi laa tax yéen jugoo leen ngeen xeex pour ñu criminaliser ko. ñu xeex ko criminaliser ko mais loolu am na ñu ko war a def mën nañ ko demander comme mën nañ ko ak député yi mën nañu demander loolu c'est possible. Ah, mais nag li ma la mën a wax mooy man daal loolu nga ma laaj. Mhm. lislaam laa laa gëm l'islam nanguwu ko te aussi diina catholique nanguwu ko benn diina nanguwu ko mën nga porter combat boobu ngeen ngeen ngeen ngeen amul combat bu ma ñemul ci réew mi wala da ngeen di mooy loolu da ngeen di bañ combat bu ñëw réew ñu noot yi ñu noot yi dañu dicté loi yi amul mhm. ndax man def naa les états am na hôtel bu ma doon liggéey am na yenn hôtel yu gis naa leen mais ñoom peut-être seen réew mën nañ ko toléré mais ñun dañ ko nanguwul parce que ñun dañu gëm ne bu nu gisee lu naqar ci lislaam boo ko mënee xeexal sa loxo nga xeex ko. boo ko mënee xeexal sa ma nga xeex ko après nag nga war naqarlu ko. man nag suma toll nii naqarlu naa loolu ci réew mi ndax musiba yu bari yi am. ak balaa ak musiba yi ak yeneen ak yeneen dugg ci réew yi loolu lu ko waral. parce que boo xoolee topp histoire jamono yontu yàlla noo yontu yàlla loot yooyu yëpp da jàngal na rek loolu dafay bii mi am réew am addina. moo tax nag ma bëgg ngeen ngeen fa laay ñëw xam nga fa laay ñëw. Mhm. xamuñu lu nu man demander porter combat bi. Mhm. pour xeex loolu mais ña koy xeex ma il faut les encourager société civile bi wax ñoom c'est des sénégalais comme ñun ñun on représente le peuple. ñoom ñoo ñooñu bu ñu xeexee jox ñu seen xalaat mën nañ ko porter. comme ñun mën nañ ànd ak ñoom porter ko ñoon moom laa la man ñun on les soutient man je les soutiens la société civile là dama leen soutenir à 100 pour cent. parce que la ñuy xeex dafa nekk bu loo xamante ni lu noble la ci réew mi. lu am solo la mais ka nga jëkk xeex nag. la ka jëkk ne taw ci biir tubaab bi ñëpp wër ko. mu ne loolu am réew mi tant que maa ngi fi doon président muy le président Macky Sall. pareeguñu ma ñëw rek. après la change de discours. non dama xam nga moom la mu wax dafa leer. mais xam nga da ngay xam nga wax ki ngay déglu moo ko mën a defar mais du ku koy wax moo koy defar. Mhm. gis nga pareeguñu boobu mooy ñun dégg diiney islam la ñu gëm wala diiney chrétien la ñu gëm suñu aada nanguwu ko. sunu aada nanguwu ko sunu diina nanguwu ko. sunu culture nanguwu ko léegi lan moo tax wootewul wootewul loi d'urgence ñu def session plénière daal di koy criminaliser loolu foog naa du du bu boobaa ngeen gis euh, euh, vote bu gaaw de. mais pourtant c'est un délit. bu boobaa nga gis vote bu gaaw. ma ne Seydou Gora Goss. doo gis session plénière buy xam nga xam nga est mais est yow est yow gisoo ñu jàpp fi góor a góor jàppale ñu yóbbu leen jugé leen gisoo. ndax gis naa ko. ah, ah am na fi. gisuma ko de. <laughs> mais am na fi loolu kenn yow yow loolu dafa jar loolu kenn xam nga ne yow. mais c'est un loolu kenn c'est un mais moom ci boppam le président Macky Sall da ngeen ko war a demander à ce que ñu ñu def ko ñu ñu def vote d'urgence ñu. mais acte de contre nature kooku su kooku loi nangu ko ci réew mi. mais nañ ko criminaliser laaw. non xam nga yaa def am crime am délit. Mhm. il faut ñu xam crime ak délit. Mhm. crime moo gën a fort délit. moo tax nag yow da nga ñu criminaliser ko daan yu ñuy daan yóbbu ko code pénal daan yu ñuy daan ku rey nit wala ku naan ku nangam mais loolu dama ne loolu yëpp boo gisee mhm. lu tax defuñu ko ngay may laaj mhm. mais mënuma loolu tax defuñu ko mais en tout cas c'est un délit boo xam ne kuñ ci jàpp dëgg dëgg dëgg. yéen majorité bi nga xamante ni da ngeen euh, far ak président pour man bu ngeen ànd àndoon euh, waxtaan ak moom ngeen yóbbu ko session plénière même pas deux heures de temps xam nga yéen seen session plénière day dem ba quinze heures de temps sax mais bii moom gëm naa ne même pas deux heures de temps dinañ ko voté mu jeex loolu moom leer na. war ngeen ko def nag seen combat xam nga ab député bu ne am na droit demandé. Uh-huh. loi nangam. Uh-huh. député bu ne am na ci droit. Uh-huh. moo xam bu ñëwee dañ koy accepté boo xam bu ñëwee dañ koy rejeté. Mhm. comme ni ko le gouvernement mën a demandé. Mhm. muy le président Macky Sall. parce que nee naa la loi bi mu demande woon léegi ci fekk na assemblée sax tëj. Mhm. mais ñu ubbi section extraordinaire parce que section ordinaire yi day ubbi du mois de juin. non du mois de juin lay tëj ubbi octobre octobre ba juin. donc bu tegee loi boo dugal day doon loi boo xamante ne day doon ci section extraordinaire. moo tax ñu ubbi woon ko tëj nañ ko dem. bon loi yi ngay wax bu ñu ko demandé. ku ne da nga ciy wax sa xalaat parce que réew mi dama ne da ko pencoo. mais man boo ma laajee sama xalaat bu nu tegee loi bi. Mhm. luy sama xalaat. Mhm. damay voté oui pour criminaliser. d' accord je avec toi sur ça. parce que man daw ma daw ma de. dama ne bu nu ko indee pour criminaliser ko je serai le premier à dire oui. d' accord ayca loolu moom leer na moom.